耶勒。

li offort yokkee ci production bi ñu ànd ak ak ñun ñun SDE dañ fexe ba ndox mi bañ a perte mooy li kam Mansour Kama wax léegi et puis surtout qualité ndox mi bañ a am benn difficulté ci consommateur yi euh, incha allah dañ ci ànd ak waa Oxoor am si équipe yëpp ba màggal bi passé bëggoon préciser sëriñ bi rek depuis un mois et demi suñu équipe yaa ngi fii mooy ñu toog fii te dañ fi toog

pour euh, lu mel ni bañ am benn difficulté nga may ma nag man spécialement ma remercier sama xarit sama mbokk Serigne Cheikh Awa Balla bi toog fii xamante ne depuis bu yàgg euh, toujours mu ngi joxe conseil yu ba te di ko wax ni di wax Serigne bi SDE te ak ñu continuer ak autorité yi difficulté bañ jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi mu ne ñu nuyu Mouhamadou Mansour Kama mu ne mi nga xam ne moo jiite délégation bi mu àndal mu ne ak Abdoul Baye mi nga xam ne moo jiite extérieur ak mboolem délégation bi ñu àndal di leen sant bu baax a baax di leen gërëm ciite jii nga xam ne def ngeen ko ci màggal ndax at yi yëpp. ñu ngi ci jàppale dëkk bi di ci jëf daaw leen nee na xaj na sax ba ngeen ko daan def daaw leen bëgg koo xam nee na ndax technique boobu nga wax léegi mu ne loolu nga xam ne mooy bën bën nga xam ne dafa sànq daaw ñu ko gis yéen ñi yor seen technique bi dañu daan jàppale waa dëkk bi mu ne te loolu kat bokk na ci li ci gën a jafeel ndox dëkk mu ne bu ñu fàttalikoo 2011 12 13 étape Sénégal defoon na ci juróom milliard ci sensitéo yi waaye taxul mu xaaj mu ne lool nag ay jafe-jafe la ci dëkk bi mu ne dañoo wax ne bu fekkee ne ndox mi téeméeree dugg ci dëkk bi nee na ñeent fukki lu dem ci suuf rek la. day delluwaat ci suuf ndax bën bën yu bari yi nga xam ne ci la ndox mi jaar dem suuf mu ne kon lii ngeen ci defaat ab liggéey la ndax bu ñu yokkee forage yi yokk pompe yi te réseau bi di jël ndox mi di ko tuur ci suuf it du baax sëriñ bi nee ñu leen di gërëm ci loolu baax nee na yéen ñaar ñii fi ñëw kenn ku ci ne mu ne xam na la ngay wëlëreel ndax Mansour mi 2011 nee na moom mii ak Mansour 2011 lañ njëkk a jaxasoo mu ne waaye jaxasoo ko nag li ko lal lépp yi téere yi nee ndax jamono jooju daa fekk réew mi toll ci tension yu métti mu ànd ak ay kilifa yu mag ci réew mi seet si ko moom mii waxtaan ak moom. ndax mu ne booba élection yi ñu ngi jub si élection 2012 yi ñu baree bari tiitoon ci nee na bis boo xam ne la seen ko dee tàmbali mu ne waaye moom mii di mën sool sëñ bi nee xam ne ne ku bëgg réew ku jàmbaar yi la mu ne ndax li ñuy wax wote mooy ku bëgg réewam rek bëgg ci wolof nee na moom mii loolu am na ci moom ñu dajeeg moom mu ne ñu dajeeg moom bitim réew dañ ko koy seeral fu mu ne ko loolu nee na ko ciy sant bu baax di ko ci ñaanal suñ borom lii nga xam ne jiite na ko muy kër goo xam ne li ëpp ci senegal kër googu leen di jox ndox te li ci ëpp lépp di ay sénégalais kon loolu mu ne yàlla na ci yàlla gën a def barke barkeel leen kër ga mu ne bi nga xamee ne mu ne bi nga xamee ne Seex Muntaxa yàlla teg na ko ci muy Sëriñ Tuubaa mu ne dafa wax ci biir koor bi ci biir koor bi dañoo ànd ak seen Seex Walla bii toog ñëw siyaare sëñ waxtaan ak moom fasanteeg sëriñ bi kon sëriñ bi wax leen ay yitteem ci ndox mi looloo waral mu ne looloo tax ñoom ñu séqiwaat ci jéego bu a rëy ma doon séqi mu ne kon loolu sëriñ bi yëg na mu leen ci sant bu baax di leen ci gërëm mu ne dëkk bii lu fi waay def moom nga ko defal ndax moom lépp moom la war ku tàbbi ci sa biir kër jëfal la lu baax cant gi yow la war bu dee safaan ba it yow la faj la war mu ne kon li ngeen di jëf sëriñ bi gis na ko ñu ngi leen di ñaan bu baax di ñaan Abdou Bal mii ci taxawaayam mu ne yàlla gën laa dëgëral gën laa kàttanal ba fi am mu yor jërëjëf wasalaam